asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 12 décembre 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb fële nañ xëy doore ko yëglikaay bi nag tey Bombardier la xëy andil ñu ko ak ki nga xam ne nii daal moo di am a seen seenub combat nag ca la ñuy wax maanaam romance boo xam ne daal war naa dox seen diggante Max Mbargane ba nga xam ne nag léegi moom moo yore Bombardier di ko menacé daal la mu xam ne daal moom d'accord na ne daal fi mu nekk nii loolu moom am na ñu ngi leen di démarché maanaam Père Max daal moom dëggal na wax jooja te itam nag nee na ginnaaw loolu ñoom pare nañu ngir bëree loolu mooy wax ki nga xam ne nii moo di waxi Max Mbargane la waaye leneen loo xam ne ni tamit wala keneen xam ne nii wax na wala ñu waxal ko muy Eumeu Sène ka ko waxal nag moo di ab di lanjang lanjang moom fi mu nekk nii moom ñoom itam ñu ngi jatu rek di soccet di xaar ku leen ku ñëw wax ak ñoom nee na daal ñoom fi mu nekk nii ñoom ku ñëw la ñuy xaar koo xam ne nii moom ñu ngi doon coow digganteem ma ki nga xam ne nii moom moo di Boy Niang muy Balla gay numéro 2 dana am ak du am Balla day nangook du nangu mu mel ni ki nag tey bi nu xëyee liñ gis ci yëglikaay bi di sunu làmb moom Balla moom la mu wax nag leer na nee na daal li leer ba leer moom pare na fi mu nekk nii ngir jàkkaarloo ak Boy Niang nee na loolu na leer naññ léegi Balla Gaye numéro 2 léegi nag moom daa pare ngir jëflante ak ki nga xam ne nii mooy Boy Niang bu Pikine keneen koo xam ne nii moom que mu bëgg a jëflanteel mën naa am du yomb ci moom muy Garga Mbossé Lac de Guiers numéro 2 daal la jàpp ne moom mooy adversaire am boo xam ne nii biir Guédiawaye war naa génn ñu bëre waaye na dafa mel ni daal ka yore di ko tàggat ne na ko Garga xamal sa bopp ki nga xam ne nii mooy Lac de du sa moroom te itam du sax sax màppandoo ci lamb ña nga xam ne nii ñoo la supérieur ñoom la bëreel daan ñi ña ca des mënuñu ci ñoom dara rawatina waa googu kon xamal ne moom du sa morom ne na ko li leer ba leer géejawaay bu dee am nga ko fi war a defanteel du kenn ko dul Sa Thiès xamal ki nga xam ne nii wala boo xamal sa bopp moom Roune Sall moo wax loola may tàggat ka nga xam ne nii day moom moo di ki nga xam ne moo di lakk waaye Roune yemu ca nee na nag li leer ba leer moom ñoom ña ñu teg seen bët wala ña ñu pare ngir dem jàmmarlu ak ñoom ka ca jëkk moo di Gris Bordeaux Modou Lo roi des arènes Eumeu Sène bëre ak yow am na leneen loo xam ne tamit wax na ko maanaam sunu làmb door bi daal moom jàpp na ni déwén moom écrit waalo lépp lu ñu man dinañ ko def ngir jël ko ñi nga xam ne moom lépp lu ñu man ñu ngi koy def ngir seen écrit tegu ci aw yoon mooy waa Fass sunu làmb xëyati tey ñëwati ci ñoom mu mel ni kii nag ñoom fi mu nekk nii daal seen fukki sart yoo xam ne daal teg nañ ko yoo xam ne nii moom naru ñu caa maye dara wala ku ko jéggi dañ lay dàq génne li nga xam ne nii moo di seenub écrit ñoom waa Fass yëglikaay bi moo ci ñëw Modou Lo ma nga xam ne nag moom mooy roi des arènes moom li leer ba leer ña koy supporté muy ay supporter am daal dimanche ji ñu génne moom def nañu ak moom ab yend boo xam ne daal tappal ko ay médaille jox ko couronne roi des arènes ba nag xamal ko ne nag yaay roi jox ko ay rabal Moussa Ngoo yëglikaay bi tamit ñëw na ci leneen loo xam ne nii moom am na mu di combat boo xam ne taxaw na muy diggante ki nga xam ne nii moom moo di Valdo bu bul faale ak Ahmed Dem bu Caaroy combat ba nag li leer ba leer Yaaba Njaay ko tëgg mois de mars la koy amal fa nga xam ne mooy ca Linguère sunu làmb xëy ñëw dina ko wax leneen loo xam ne tam dañ koy fekk fa nga xam ne moo di ca la tribune la tribune moom tafaatina fa xëy ginnaaw Modou la ba ko waa këram tappalee couronne roi des arènes ba feetoo ak moom tafaatin ne na li leer ba leer daal jàppal sama digganteek moom moo ko yàq moom Modou loo daal moom moo def li tax sunu combat mënta am waaye na maa ngi koy xaar ci àngal bi rek bukki wiiri wiiri jaari ndaar yi te bés dina ñëw maak moom nu mbëkkante ndaari loolu la waxee ki nga xam ne moo di tafaatin la lambi simple ja moom bu nu ca demee li leer ba leer weekend bi nar naa saf-saf ndax fa nga xam ne nii moo di mar faafa ko moom le 12 bala 15 décembre daal ay nag teg nañ fa lu toll ci fukki nag ak 150 000 maanaam xaas ba bëri na drapeau Matar ba décembre fa nga xam ne nii day mooy ca Fatick un million deux cent la ba tey loolu lamb ji nga xam ne nii daal moo di lambi simple la waaye leneen loo xam ne nii moom dan cay dem muy combat boo xam ne daal dafa war a am diggante Tafa Gueye numéro deux ak Abu Ñaase mbay ndewaan nag may tàggat Tafa tin yore bawal mbooloo moo xëy di ca wax moom jàpp na ne ki nga xam ne ni daal moo di Abu Ñaase mooy favori ca boobu combat waaye li leer ba leer daal dañuy wax inna lillahi maanaam ku juddu danga nga dee lu tooyit da nga mas a wow mu mel ni kii daal làmb ji am nay tiis yu ko dal fa nga xam ne nii daal moo di Malika tiis safa fa waaj muy ki nga xam ne nii moo di Gris bu Malika moo fi bàyyeekoo déem ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te xaree ko aljana waaye ka nga xam ne tamit doomu ndeyu Siteu la nekkoon bras am moom tamit démb dafay bàyyeekoo wuy ji boromam kon ñii ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te defal ko bépp doomu aadama wala bépp jullit bu tëdd ci suuf. mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen di leen gërëm di leen ngeen àndoon ci nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar di la félicité tamit sa victoire démb bi. waaw merci merci waaw félicitation réelle mooy mooy géej gi am na ndox parce que loolu lu ñu tàmm la ku bëgg victoire moom du gan si ñun daal waaw yaakaar naa loolu moom àddina yëpp seere nañ ko c'est le meilleur du monde loolu la yàlla dogal di nuyu internautes yëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm xam nga di ko sàkku si ñoom waaye tamit tey. Euh, fi ñuy njëkkee rek wala balaa may ja balaa ñuy jàll mooy dañuy delluwaat suñu bopp rek suñu borom parce que comme ni mu ko waxee sànq rek ku juddu da nga dee ndax yàlla moo ko dogal daa mbër boo xam daf fi bàyyee ko bokkoon si làmb di xale dëkk Malika ñu koy wax euh, gri bu Malika di ñaan yàlla yërëm ko te jéggal ko ak ko xam ne tamit xaritu Siteu la nekkoon bras droit am ñu koy wax booba moom it jóge fi dem wuy ji boromam di ko jaale waa jàmm gën yëpp di ko jaal tamit ki nga xam ne mooy Siteu rawatina ñoom Siteu Bamba Touba ñoom Lat Diop ak ñoom Sisa bu Siteu ñoom El Hadj di ñaan daal boobu moom tam yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljina moom bépp jullit bu tëdd ci suuf Amin Babacar Babacar nu commencé ak sunu lamb sunu lamb euh, comme lu ñuy waa Leewtoo point bu bindoo rek semaine bee passé euh, Max Magane ne woon am na promoteur buy tox combat Bombardier ak Eumeu Sène te tamit dëggal na ko ci fii journal bi nga xam ni mooy sunu lamb Bombardier ak Eumeu Sène ni combat revanche bi di nga koy dox Max Magane nee na Bombardier moom preneur na ndax moom mooy manager bu bees bi la jàng aussi bu Eumeu seen moom nee na day xaar nu saisir ko waaw loo ci mën di dégg daal sunu lamb tey loolu la xëyee tey maanaam ci dox goo xam ne ñu ngi koy dox combat Eumeu Sène ak Bombardier muy lu jaadu parce que lamb day am revanche ci moom la jëlee woon couronne bi moom Eumeu Sène defe naa tey c'est pour ñu war a ko mën a dox ñu war a mën a bëreewaat père Max mi ko yore nag bu confirmé lool kon loolu mën nañ na mën na na koo xaar lañ ngi itam comme moo yore Eumeu moom ne mu ngi xaar ku ko saisir ah kon dafa mel ni ñoom ñaar bu ma déggee wax ji daal day mel ni ku bëgg fu mu fanaan la ak ku bëgg ku ko wét li yaakaar naa tëjël bunt bi waru leen Euh, Balla Gaye demee mi wax si journal bi ne moom nee na pare na bëri ak ki nga xam ne mooy Boy Niang. waaw loolu day moom moom lu leer naa ñu la moom moo xëy tey nee na pare na ngir Boy Niang yaakaar naa nag Balla moom bu waxee loolu euh, Balla dama moom mbër la. te bëre la bëgg ci xol bi waaw moom da jàpp ne mbër la mbër mu bëgg di bëre la kon yaakaar naa bu coow li bëree bari bari wax ji dem dikkal bi ah moo tax xëy na mu ne mu leeral léegi mu leer kani moom na leer pare na ngir jàkkaarloo ak Boy Niang te man Babacar maa ngi wax ne daal bu ci cadre làmb la yaa ngi dégg tey lu ma doon wax rek laay wax Balla Gaye 2 lay neex ko mam ak Boy Niang taxaw yaa ngi dégg parce que la mu ko rawee ci làmb la Boy Niang itam bu ko Balla gay mayee sens itam ah moom mooy xool ndax si boobu sens dina yomb ci moom wala déet waaye daal xam ne ku ko tëgg itam moom da am combat bu neex a neex Euh, Arouna Sall mi coach kenn si coach yi nekk écurie Waalo moom dafa mel de dafa tontu euh, ki nga xam ni mooy Garga Mbossé ndax Garga Mbossé bu jógee États-Unis dafa ne bëtam yëpp mi ngi ko teg si kaw ki nga xam ne mooy la Lac de Guiers 2 Arouna Sall nag lu mu wax mooy euh, Garga na seeti Sa maanaam daal xamal na ko ne Garga sa Lac du sa moroom waaw bo parce que tamit bu ñu waxante parce que bu ñu xoolee xëy na si palmarès yi ak jaar-jaar yi Lac de Guiers moo jiitu Garga. yaa ngi dégg comme ni Modou Lo jiitoo Ama comme ni Balla Gaye jiitoo ki nga xam ne ni moo di Boy Niang yaa ngi dégg mais nag du tere que ni ñoom ñi nga xam ne tey ay xale lañ li ñuy inspiré wala ni ci seen xel yi mooy bëre ak mag ñooñu xëy na garga loolu tax moom tamit mu attaqué lag ne na ko jël ñu bëre waaye ron nag ne na ko du sa morom toujours te du ko nekkulu ko war a bëri Sa nga war a bëri te effectivement defe naa man man tey bu ma doon promoteur di tëgg moom combat Garga Mbossé Sa Thiès lay tëgg moom waaw parce que lamb lamb ju rëy ngi noonu lamb ju neex a ngi noonu Babacar journal bi tamit ñi xamal ni que Fass avance na bi mu ne léegi dafa am réglement intérieur bu bees teg na daal ay charte di chartes yoo xam ne mbër yi dañ si war a euh, euh, sëkkandiku su dul loolu rek yat bi na dal seen kaw Babacar. waaw mbir la day boo xam ne nii maanaam écrit la boo xam ne nii comme ni ñu xam xamee rek écrit bu yàgg la xëy na nag dañoo dem ba xam ne ah gaal gaa ngi waaj a suux nag ñu ne nag nañ taxaw nag génnee matériel yi ngir sauver gaal xëy na moo tax nag ñu waxtaan pour que bëgg a seen écrit teg ko ci aw yoon moo tax ñu teg ay sar yu toll loo xam ne poñ yoo xam ne toll na ci fukki poñ yoo xam ne daal jàpp nañ ne nii ku ko respecté wul wala boo ko jéggee sa dàq ci bi xaj na ci ah loolu nag la mu wund mooy que ni daal ñoom ñoo ko seq muy ma président ba ak bureau ba mu àndal ak supporters ak mbër ya ñoom ñëpp ak sax ñuy tëggal mbër ya ku ci ne am nga ca wàll ñu toog comme toog nañ waxtaan ba tënk la ñuy tënk buñ ci d'accord ñun ñëpp nag a ah xalaat naa keroog bu keroog ne ku ko xët yaa wàcc yoon te ku wàcc yoon itam mën naa am yoon am lu mu teg ci sa kaw Babacar journal bi tam mi ngi mel ni nga xamal ki nga xam ne mooy Yaaba Ndiaye promoteur bu bees tëgg na combat Valdo ak Ameth dem mars lay lay doon si fay ne si Linguère. lu neex la tëgg de waaw Yaaba Ndiaye de tëgg na combat bu neex xamu ko ku déy lool de waaye décroché na affiche de ndax yaakaar naa dem Ameth Dème ak Valdo ne Valdo tey mooy yi Mouhamed Ndao tey seen si bul faale amee dem tamit comme li ma waxoon démb rek mbër mu mag la. xëy na dafa am ay quelques kii ci carrière yaram mbir bi waroon naa fekk sax xëy na mu dépassé mais nag comme li ñu wax rek jaam ak pexem buur yàlla ak yi dogalam yaa ngi dégg mais jàppal ne Yaaba Njaay boobu daal ca Linguère yàlla nañ ko fekkee tal ko mois de mars tëgg na journée boo xam ne daal bu neex a neex la ñaari bëreekat la tëgg ñaari mbëri gox la tëgg parce que kii doomu Joal la ak Pikine yaa ngi dégg kee tamit nekk doomu fi nga xam ne nii moo di caaro yi mu mel ni géej gi boole na leen boo xoolee Babacar suñu jegee na suñu laam ma dem fi nga xam ne mooy tribune tribune moom la ñuy xamal dañ fa dalal ki nga xam ne mooy Tapha Tine lu mu wax mooy nee na combat bi moom ak combat ak Modou Lo kenn yàq ko ku moom mi Modou Lo roi des arènes parce que moom d'accordoon na bu bëree moom xaw ma nag tax nag Modou dem ba si biir delloo avance am. Ah, moo tax daal mu ne wiiri wiiri dana jaari ndaari bis dina ñëw ñu daje ah waaw Modou de bu dee moo yàq combat ba xëy na am na lu tax mu yàqu ko waaye man daal li ma xam moom ñoom ñaar seen diggante nit ñi itam ñu ngi koy reefe parce que mosuñoo gis ñu sëgg bëri te nit ñi rawatina amateur yi bëgg nañoo gis Modou Lo ak Tapha te làmb gënu koo jaadu de ndey Kumba Fall Modou Lo Tapha Tine rek arbitre soufflé non gis lu garaaw garaaw parce que Tapha jàpp na ne xëy na moo mën Modou ci xelam te Modou moom li mu gëm mooy amut mbër muy takk ngem mu ko man tey loolu defe naa ne tamit boo xoolee mën nga ne prouver na ko parce que tey c'est le roi des arènes. Babacar nag nu jeexalee ak Leewtoo point net Leewtoo point net ñi nga xamoon ni que ginnaaw Jackson mi defoon open press am te nag adversaire am euh, muy Pape Ndoye moom mooy def tey open press Babacar. waaw loolu la ku fóotal ba troccil bar sa normal Jackson def na gi dem Pape Ndoye di def tey ah loolu tamit lu am am solo la waaye am na loo xam ne tamit nañ ko xaar ci Leewtoo TV muy face à face bu neexoon démb diggante Serigne Ndiaye numéro 2 ak Libidor amewoon fa nga xam ne mooy ca Pikine ginnaaw raay ci teewaayu la député Mame nga xam ne moom la jéey. delloo drapeau boobu di ngeen ko gis ak yeneen façon euh, kàddu yoo xam ne ni bokkut sax yi ngeen jëkk gis ci yeneen kii incha allah. waaw maanaam yi yi maanaam li liñ nar a gis fu mel ni 2STV waaw xëy na parce que ñun tamit bu ñu ñëwee si milieu bi bi ñu dikkee dañoo dem jël mbër yi jël leen balaa ñoo ñëw Modou Mbaye di leen dékk micro mais di ci profité di nuyu Modou mbay tamit di nuyu tamit ñi nga xam ne ñu ngi suivre 2STV yëpp ak ñëpp ñu nekkoon foofu démb daal. Babacar nag si kàddu yoon leen di tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mère soo nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astan ne déjà Brahma Chéri Khadija Diallo nuyu sama doom maam Diarra Penda Fallou Rokhaya Moussa di nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Gueye Papa Cité Baye Fallou jàmm gën depuis États-Unis maa ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu ki nga xam ni mooy Khoudia Seck euh, Chéri. Euh, ki nga xam ni mooy Khoudia Seck chéri Asec dépp Verocchio itali aussi maa ngi koy nuyu nuyu ki nga xam ni mooy Aïda Diouf ak Aïcha Faye madame ñaa yaa ngi si biir nuyu naa ñëpp ziar naa ñëpp ñaanal ñaa ñëpp koo xam ne ni daal yaa ngi suivre Leewtoo TV mais Serigne njur duma ko fàtte di sama doomu nday nekk ca Italie te actuellement mu nekk Sénégal maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu bépp soppe Babacar rek fu ñu mën a nekk rek wala képp kuy sax sépp Leewtoo TV maa ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm xam nga di waxaat rek encore une fois Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm Aïda tamit di ko nuyu di nuyu waa Leewtoo TV Leewtoo production bi yëpp di jël nuyoo bi nag jox ko Thialis parce que c'est le DG ak tonton Diaw borom ADN képp ku fi yëngutu daal Babacar a lay ziar di la ñaanal jàmm di la ñaanal yokkute barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu tamit ñi nga xam ne nii ñoom ñooy sama fans club du ma leen fàtte ba ilaa mi diini muy mel ni ki ñoom Cédric ñoom Baye Sall ñoom Pape Ndiaye ñoom ñëpp nuyu naa leen ca Espagne Barcelone moo ma jox lii ci Real Madrid maa ngi lay nuyu bu baax baax di nuyu sama doomu nday Pape Diagne depuis Chine démb tamit pare bi ma soloon moom moo ma ko jox di nuyu ñëpp bi ñaanal ñëpp jàmm daal. ba suba incha allah félicitation au